asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum àdduna wërngal képp mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen jaajëfal di leen wax ne yéen mi safoo Sahel Network TV ñun ñoo fi ñëwaat tey si seen another talk show di City Affairs ñu am fi si kër gi gan boo xamante ne kenn du ko laam-laame mu doon kilifa bi Banjul kilifa boo xam ne kenn du ko manam kendo kilifa bu xarañ dal ko xamantene wa xamnañ xam nañ ko si yëngu-yëngu assalamu euh, alaykum Mr koka ma di la nuyu di la wone ma bayla nga nuyu askan bi ñu la setan a'udhu billahi minash seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu suñu president bi Adama Barrow di nuyu suñu am nguram di nuyu suñu meyo ak kansulal yeb di nuyu suma. Kan suma wot mui Pa mm -hmm. di nuyu sama kilifa yi di ñaanal sama bo fim mu tëdda ak be ñi fa nekk yëpp yàlla na leen àjjana yàlla seetal suuf Uh, well uh, tey ma am sama left ma am ko xam mom moy honorable Pa Babou chan mom moom duggan si kër bi uh, yaga na dafa ñew Pa ma bàyyi la nga nuyu askan bi jërëjëf Ada di leen nuyu asalaamaaleykum. di nuyu askan bi ñëpp di nuyu ya, yëpp ak ñoo seetaan fii si Sahel. gannaaw eh, bu ma sante suñu borom di julli si sanga bu sell bi muy suñu yaakaar Eric sant suma Serigne Maolana Cheikh Ibrahima Niass di sant kërëm suma ñaari waajur bu baax a di dalal suma goro suma kilifa di suma mentor si programme bi tey bi pour mu ñëw war am waxtaante ak waa Banjul ak suma mag yi tok mi mam sew ak Ara yo tamit la jaajëfal bu baax baax si opportunité bi ñu joxaat ni tay pour ñu ñow fi pour waxtaan askan bi jërëjëf cham ma bay la brother hu yo tamit encore ñu ngi la nuyu di la wone ne dalal la jàmm si kër bi ñu bay la nga nuyu askan bi assalamu alaykum ma ngi len di gërëm sen tour sen santa jere jërëjëf dama àndoon fi suma brother Afis ku bala la Afis ko xëy na moom laa àndaloon fii tey si télé bi. waaw ngeen di nuyu di leen sant di leen gërëm. waaw ah, jërëjëf fay nañ la ah, ba tey Mr Kuka ma bëggoon ñu xuus si programme bi tuuti yaatal jotaay bee waxtaan bi waaye Mr Kuka gis nañ ah, doon nga fi koo xamante ne dinañ ne gis nga démb gis tey si biir Banjul fii surtout Gambie at laaj so ñu comme gis nañ ne génération bu ñu nekk Banjul before ak Banjul léegi. xëj yo yow di ñu su mëna wax dara ñun mi nga xamne ñun ñu ngi doga a ñun xamuñ gisuñ ci dara dega rek lañ ci am yo mi nga fi ne yo mi nga xamne yang fi won demba nek fi tay ma bëggon la laaj ah, bànjul fi ni naka la kilifa yi daan dundé si ah, society bi ak xalé yi naka la kilifa yi daan dundé ak nit ñi ci mbedda ak dëkkuwaay yi mooy bànjul demba nga ñoo gis tey bànjul yo lan mo si saxalat ci si ci bir waxtaan bi ñu bëgg nga leeralal ñu fofu nonu tuti ñuy ñu mëna xam waaw waaw ana Banjul démba discipline dafa amoon yar dafa amoon kilifa yi yëpp dañ nekkoon benn waaw soo di gis ne soo nekkee ci koñ sax nga saaga wala nga def fa loo fa war def di gis beneen kilifa bu jógee ci beneen kër discipline la waaw waaye di nga gis ne Banjul tey social media bi exposure bi nit ñi am bokk na ci li tax yarin ni mu war a amee amut waaw da gis ne mbeera ya, bi yu bari fa la ko nit ñi di jëlee xale yi di jëlee isi ko ci kër yi. waaw media bi nga gis ni tam ak exposure bi tànn bi xale yi tu discipline. mu doon lu am solo ñu eh, gis ne discipline bi dimba maanaam suñ bëggee waxtaan si biir discipline yarin yi dafa des si kër bi wala ticca yi si school yi ñoo war a yokk yarin bi. non yarin bi ci kër bi la rek man loolu laa lay wax. waaw school bi dina ñëw waaye loolu afta la waa yeneen bi ci kilifa yi la waaw kilifa yi ñoo war a jóg waaw kilifa tey nag dama dee wane dañ bàyyee seen doom yi si seen sago parce que li tax ñun suñ time soo waree nekk ci kër gi balaa timis dinga nga make sure ne yaa ngi fa balaa timis ni ngaa soloo di nga make sure ne dafa proper ni ngaa waxee dafa make di nga make sure ne dafa proper waaye tey di nga gis xale bu taa xale bu ndaw pare saaga mag wala nga gis xale bu ndaw ni moo solo waaw lépp ñu ngi ko jëlee ci wes bi. waa waaye ñun jullit lañ ñun dañ am religion te lu nekk ci yarin bi la. solo bi ci yarin bi la. wax ci yarin bi la. jëf def yëpp ci yarin bi la. so foog naa ne daal parents ñoo war a jóg. delloo seen bopp ci yarin ni démba woon nga xam ne dinañ mën a isiwaat xale yi teg leen ci yoon su boobaa suñ ko defee den school bi ñëw den school bi tam dimbale leen su boobaa discipline dina am xam nga booba jamono dañ daan gis ne eh, xale da nga koo yar si kër ni nga ko war a yaree su génnee mu wone ko si biti waaye dañoo gis ne tey yaay yi duñ yar seen doom yi si kër bi ngeen baalal ma si kon ko wax neexut dangaa wax ñi gisee ko neneen so dang di yar xale si kër yene yow yaay bi sax doo yar sa doom nga génnaa moom si biti mu dem school ticca sax waa xale bi du maanaam du def loo xam ne dafa jaar yoon wala ticca bi bugg koo sol xam-xam bugg koo jàngal won ko aduna yow yaay bi na ticca bi laal sa doom bi the first thing yow loo dee njëkk xalaat mooy attaqué ji ticca bi si school bi yow bëgguloo xam sa li xew waaye yow daal na nga ko attaqué ji soo yow loolu noo ko gisee comme ticca si naka lañ mun a def ba dimbali xale yi su fekkee yaay yi mayuñu leen opportunité boobu waaw loolu moom mooy li ma wax dañoo delluwaat ci parents yi rek. Mhm. parents a delloo seen waaw su fekkee yaa loo xale bi yaa ngi ko lor parce que xale bi dina tukki ji. Mhm. waaw ñun yàgg nañ abroad. Mhm. Amérique daf ñu discipline parce que gisuñ yaay gisuñ papa. waaw toog nañ gis lu bare loo xam ne ñun mosuñ koo def suñu réew fii waaye loolu tax na ni ñu yaree Banjul moo ñu dimbale bi ñu demee bitim réew ñu apply ko foofu noonu moo tax tey ñu nekk ki ki ñu doon tey waaye xale xale tey ñoom liñ gis rek foog naa ñoom tey rek lañ gis waaw ñun nag lañ gis three days tey démb ak gannaaw ñun loolu lañ gisaan suñu taaj waaye xale tey nag ñoom tey rek lañ gis waaw soo ñoom um, teachers yi dëgg la war nañoo play rôle ful dimbale xale yi. waaye comme ni ma ko waxee rek parents yi ñoo ko war a jëkkee ci kër yi. waaw te parents yi ni ñu war a de niñ ko war a jëkkee mooy nañ dee waxtaan seen doom yi. waaw am na yoo xam ne léegi sax si jamono bi nekk nii soo waxee eh, ñu ne tubaab bi mm-hmm. la déedéet waxtaanal sa doom waaw sooy eh, waxtaanal sa doom mm-hmm. wan ko àddina di ko waxal. man man ba léegi su may daf maa waxal. ba léegi su may daf maa waxal su ma demee damaa dem ma gis ne li mu wax dëgg la juum naa ma correct suma bopp. waaw waaye xale li tey nag su fekkee ne nag seen yaay duñ leen waxal duñ waxtaan a ñoom nga bàyyi leen foog ne si lu leen neex te xale boobu noonu du am discipline même su tukkee sax dafa am problème waaw parce fa moo dem du kiram fa moo dem du dëkkaam fa moo dem amu fa kenn. so waaye discipline su ko amee mun na koo dimbale ba nga xam ne dina survive fa moo dem noonu waaw mu doon lu am solo ñoo ko déggandoor waaye ba tey Mr ko man su ma la bëggee laaj Gambie fu mu nekk ni dinaa ne wool bi yëpp duma ne Gambie rek tollu na jamono yoo xam ne jamono bi tar na lool métti na métti boo xam ne ñu ngi dunda feebar ah, bu ñu ooyee coronavirus feebar bi doon loo xam ne mu sonal ñëpp Gambie fii ñëpp a ngi lockdown parce que fii ñun ñun ñu ngi si emergency lockdown bi so ñu gis ne 45 ah, days buñ joxee pour lockdown bi everyday ñu ngay yoka way dal gambie dafa melni ni fi mom febar bi sax neeku fi because nit ñang ci si nit ñangé topato sen soxla suñ leen ne tok leen fi kenn togatut so ci bir lolu ñu gis ne nguur bi uh, am nañ uh, walu koppar bo xamné ne bu nga xamantene bari na lol lol lol léegi yo tay nguur bi solé na ñaax pour xaliss bobu nonu yo lan nga ne lañ wara use xaliss bi pour liggéey ko waaw ah, foofu loolu moom Ada li nga ma laaj nee na ma trop fu ma tontu la ci waaw nguur gi nañ wàccee yërmande waaw nañ wàccee yërmande xam ne am niiw niiw doole yaa ngi fi ba pare am na ñoo xam ne sax niiwuñ doole de waaye seen fi ñu daan amee seen amokaay moo tëj. soo di nga gis ne affaire bi ñëpp la affecte waaw ñoom nag su fekkee ni comme xaalis boobu ngaa wax waaw nañ ko génnee ñu jéem a dugg ci kër yi. seet lu ñu mun a dampee xoole nit ñi. parce que soo waxee nit ne mu tëj business am. oo yaa ngi condition nit ne dafa war a tëj. waxtu sàngam ni kooku noonu su ewoo dafa war a ndéewu dafa war a añ dafa war a réer dafa war a fay luwaas mu ngi am joboot you know beneen bi ci wàllum li ma bëgg wax ci affaire yi xaalis boobu ngaa wax man suma advice mooy ne nañ dugg ci loppitaan yi ñu sarse lopitaan bi ba nga xam ne bagaas am na ku feebar ni la ful dem Sénégal ku feebar ni la tuloo ful dem abroad waaw yal na yéex nag ci feebar waaye li ma li tax may wax loolu mooy ñun suñ docteur si docteur si jàmbaar lañ waaw noo si nga gis ni jàmbaar lañ waaye su bagage amutee ci lopitaan bi garab amut ñun dañoo sonal rek te Gambia population bi rëyut booba rëy ñun mi tukki na nekk ci wes bi gis dëgg développement gis nañ ko ci réew yooyu noonu. waaye health dafa important health mooy number one. waaw soo damaa ñaax suñ président bi ak nguuram. ak ñi ko toppa ci gannaawam nañ man moom maa ngi ñaan di leen ñaan ci barke Kaaba bi ne leen. nañ toog waxtaan suñ docteur si dina bagaasi. waaw ñu du dugga ñu ngi am lopitaan Banjul fii am nañ lopitaan bi ñoo naka bi nekk Kanifing. am nañ Bansang am nañ Farafenni. nañ dugga ci lopitaan bi sarse parce que docteur si suñ amutee bagage duñ mun a liggéey. Mm-hmm. am na feebar yoo xam ne docteur si nii mun nañ koo faj waaye soo amutee bagage da ebal nit ki mu dem ba Sénégal mm-hmm. man daloon na ma ma dem ba Sénégal waaw paas bi kër jaamur bi nga dal understand nga ak ak ak ak ak bil yooyu noonu yëpp. Mm-hmm. waaw yombut. waaw am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay ña amuñ ko sax. waaw waaye ñoom su fekkee ne Banjul moo leen ñor. Gambie moo leen ñor. man de lay war a suule maa leen ko ñaan nele leen nañ dugg ci lopitaan yi. Mhm. ñu jënd équipements. docteur si xam naa suñ ma dégloo dinañ xam li maa wax. Mhm. waaw su boobaa su bagage amee ci hospital si rek dafa nekk ay advance hospital. Mhm. waaw nga xam ne dina am bagage yëpp. man loolu mooy suma number one suma calculon ngi ni toog dama ko ko dee wax. tuma honorable tuma Ndiaye. suma wër la nekk dama ko ko dee wax. parce que it's very important. waaw help moom mooy number one dan li ci des tegu ci. mu doon lu am solo Paa Babou kon tey man su ma la waroon a laaj tey xaalis bu nguur bi joxe kon que moom mu ne na dem si wàllum health sector bi léegi ñun ñu ngi ñaan nguur bi comme nu mu ko waxee na bagage yi nañ jënd ay bagage si lopitaan bi parce que lopitaan bi laaj nañ bagage laaj bagage boo xam ne tey dangaa feebar sax yow mi nga xamante ne sa loxo jotut sa gannaaw luñ laa njëkk a ebal mooy nga dem Sénégal te yow tey soo amul kenn ku la dimbali pour nga dem Sénégal dina métti yow dunda bi ñëwut fooy dal ñëwut mu doon loo xam ne dafa métti trop soo ñu bàyyi yow it nga sànni si kaddu nga waxtaana askan bi waaw Bada man loolu dinaa si sawar a tontu parce que dañ ne ndimbal na ca fekk loxo borom parce que xam nga suñu wàññi dara wér-gu-yaram moom mooy yëpp wér soo ko amul ne ku nekk toog moo tax moo nekk wu ñol ak bi yëpp moo tax ñu ku soo ko amee rek si nga gën a mun yàlla euh, soo demee lopitaan sometimes nga dem polyclinique mm-hmm. sometimes nga dem foofu nga xool distance bi ak fële depuis tànn yàlla boo dem foofu pôle soo demee fële nga jënd ticket dem laab xoolal distance bi ak laab mhm. nu gaa yi sori soo jigee laab moo demaat fële polyclinique waat nga demaat nga bi daal la fa garab moo xam fan la pharmacie bi nekk loolu is moo daan four hundred meters. Mhm. yow loolu soo nekkee baadoor boo xam ne amuloo moto amuloo dara mun daan si yoon bi nga dee mhm. man expérience naa yooyu ba sonn waaye dafa fekk dama ne ànd ak dama ne ànd suma suma suma ak moto bi dem ñëwaat dem ñëwaat ma toog xol eh, so bu ne man suñu ko pawa mako téné ki la mako dal ki dafa dé dafa mun a doon seen rek dee te l'hôpital tamit euh lu may wax pour nit ñoo ci seetaan ku dem l'hôpital rek traité na so amu dé patient rek am nga problème miinu ma nga jël sa patient yow ba nga am patient yow sa bop am xali mu parce que docteur yi fa fekk docteur yu bari so bay sa xel rek euh mën nga def lo xam ne ko tey da nga def fi fekk docteur donc lo loo xam da nga bëgg a xaj suuf bi du ko si toog tey da ngeen fa nekk pour faj ni ñi pour ñi nga xam ne dañ am feebar ñoom ngeen walla faj toppatoo leen pour ñooñu am seen wér waaye bu ma nekk pêcheur ñoo fa tey nga ma tontu la nii su dee nit ko koo xam ne dafa am feebar yéen a fa seen feebar bi mu mer kooku la problème mooy si si lopitaan bu ñëw fa siin te foofu ñu bëri nga fàttali daal ñoo xam ne bëggoon ñu am feebar ne bëggoon noise mun nañoo dégg yeneen noise rek mun nañoo am xar attaque mu nekk leneen mhm. soo li mën na sa ñàkk a bakkanam a intervene foofu euh eh, lopitaan si bu baax a baax empower bu baax a baax parce que tamit amna ñu lay wax hôpital su ngeen joxee garab ne day garab tamit link ak pharmacie di ko jaayal pharmacie lolu ay nit ko dee wax ñu bari experience ne lolu ko que suñu tàggee lopitaan jox la gis garab ak yena garab soo wuti ci pharmacie bi biti nga dem jini garab bi té l'hôpital baa nga fa dafa tam lu mel lu ngi xamoon soo si yàggee dangaa gom lu ñu ñu wax so di wa government men da ngay jàppale nit ñi parce que gis forty five days bi tamit Oh, dëgg la feebar bi moom ñëpp gis neen moo def si am si àdduna bi yëpp dafa métti te gis neen Gambia ten cases neen am kenn ki moom deewoon na seven eh, six recover neen mu des three moo des soo ko matuwaay ñu baax na comme li nga wax ne fii soo génnee dafa mel ni yow dafa mel ni yëgul ne feebar sax am na xam ne toog bu bëri jigu soo toogee bu bëri train lool si yàggee tamit daf lay defal lu bëri xam nga fàtt si sa yaram bi si yàggee mën na la jox sa yow sax ko feebar mm-hmm. moo ñu bëri dee daw dem exercice waaye maa engagé nañu tamit socialiste bi tamit na ko nañu tamit topp. Mhm. kon li nga xam ne dab eh, lu daay waaye. Mhm. adversaire gars yi ñooy na ko nañu follow tamit xam nga pour ñu bëti wante parce que ne fagaru moo gën faju. so prévision is better than cure soo kon ñu bëri da ngay bàyyi seen xel si yeneen yu bëri. Mhm. kooku tam da ngaa jàppale nit ñi parce que loolu nit <coughs> at home comme tey samay marché bi njaa ngi dem eh, borom légumes yi ñu ngi dem eight ba one gars yi wàcca xoolal distance from two ba six fu mu nekk jamono bi ñu bëri talu jënd yére sol ñu bëri ñu tal dund. toofeen fanaa fu mu nekk nii comme ni ma ko waxee woon bu gaa yi politique feebar bi li jombut kenn. jombut kenn na gaa yi jàppale nit ñi na gaa yi jënd ay dund dund mu ngi fi business man business man yaa ngi fi gaa yi ngay prêt pour contribuer Guinée lu bëri di ko def pour nit ñi. nag gox bi dugal na xam si wan bu baax a baax. xaalis bi mu leen jox mbëri na bëriwut. wala la rek. waaye tamit xaalis boobu war nañ si mën a jël dimbale gàllankoor gis nañ yeneen dëkk yi ñu ngi ko def. ñu ngi koy jox seen nit ñi. pour nit ñi mën a toog keroog te fu mu nekk soo demee tey koo xam ne mu ngi liggéey si marché bi marché soo gisee marché ñu fa nekk xon parce que yàlla mun na wax ñëpp xamatu ma la ngay dundee koo jox ku nekk dafa liggéey pour ëllëg am dépasse soo soo demoon tey ku nekk si ndaw ba ndaw kenn ku nekk nga dugal si yeneen yi wala ku nekk si ndaw ba ndaw nga def vingt thousand mu ngi pour temps yi pandémie bii ñaanu yàlla ñu ñoo dal ay five to six months waaye fii bu afta weeru koor am na yaakaar ne weeru koor sa yàlla mun dañu ko saafara. soo afta loolu rek. affaire si dafa cool. soo nga dem ba nit ñi seen xol soo leen di gis te yàlla moom kay nga woo ko ne ko am lii. Mm-hmm. parce que maa ngi gisoon last time suñu député yu bëri si house bu ñu ko def ñu ne ko mu annoncé ne mm-hmm. si mm-hmm. kër te jox loolu nit ki tamit lu moo lekk. dafa métti. te ñun fu mu nekk complain yu bëri nga ñëw si te dafa tingin ñun xam nañ ne affaire yi hamma métti xam nga ñun tamit suñu poche tamit suñu poche ñu nekkee sooyal ñu tamit suñu poche suñu famille tamit bëri tamit ñu sa famille da ngaa séenee nit ñaa ma fi teg du sa famille ñu la fa teg soo foofu nga nekk koo xam ne daal nga flex mm-hmm. so ko fi mel na gars yi ñëw tam aada ah, gars yi jéem a dimbale nit ñi mm-hmm. jël ay dund du ko si kër parce que fan naa soo demee bisis ñu ngi la ko wax mm-hmm. nga dem biir kàmm continuer def ay LHCR yooyu fa continuer soo dinañ la wax ñetti baax ñun. Mm-hmm. ndax si si si Gambie bi. Mm-hmm. su am na traité trop loolu mu seen naka moo ji ji dara pour fit mm-hmm. Gambian people xam ne pour gars yi mën a kontaan. pour projet épargne Gambie si jàppale citizen yëpp am ay ID card parce que si biir ID card nga a identifier tey bi pour citizen si. foog mi ngi teg ID card amul koo jox parce que mu la wane man citizen laa amuloo ID card amuloo benn document mun a tax ne yow citizen parce que am na ñoo xam ne a nañu photos card te nekkul nga am te ID card bi sax yaa ngi wax léegi am na ñoo xam ne la wane am na ñoo xam ne ñu ID card bi immigration te nekkul nga am trop lu eh, constitution bi wax dañ ne one of your parents dafa war a te fii bëri na comme ñu mel noonu te trop constitution bi constitution bi ñoo réew ñi nga xam ne péré si kenn juddoo ba ñoom fii la ngay juddoo. yàggee fi def fi lu nekk soo ñu wala ñu mooy nekk citizen. soo comme ñu mel noonu si ba si waxale tamit na kay jéem a try after this pandemic bi. Mm-hmm. ñëpp try ut ID card. Mm-hmm. dafa important pour élection la ci ana doomi réew mi. Mm-hmm. ñu ne maa ngi nii nga teg sa ID card. ñu ne am xaalis mu ngi so loolu daal na si wàllu government daal da ngay try daal jàppale doomi réew mi tamit si loolu parce que xamul mooy medina torop mm-hmm. ah, mu don lo am solo mbokay ñoko digandor government bi ah, war ngeena xamna solo na setan wala ngeena deglu dina du ñaka am na ño xamne ah, ñun ci nguur gi ngeen deglu bu baax lu ndaw yi di wax lu ñoo joytu mu don lu metti torop ngeen dugal si seen loxo ndax rew mi mëna dem kanam ma bàyyi la suma nijaay bu mo mu am tuti lu si sani si mm-hmm. walum febar bi ak copar bu nga xamante ne si biir réew mi. dëgg la di nuyu jërëjëf government bi war nañoo jël step tamit waaw by right war nañoo jël step da ngaa gis ne tamit affaire yi easy wut definitely easy wut tamit duñ war a wax nit ñi toog ba pare am nga you nit ki amul lum dundee xam nga doo mun a jóg ba pare di dem ñaani somewhere yaa nga understand this government bi war nañoo dimbale nit ñi waaw because of feebar bi tamit easy wut waaw easy wut ñu ngi ñaan yàlla tamit yàlla saafaral ko si biir weeri koor ñaan yàlla yàlla saafaral ko loolu laa bëggoon ok mu doon lu am solo ba tey Mr Coker su ma delloo si yow ma laajaat la gis nañ ne comme yaa ngi yëngu-yëngu di dimbale ah, ah, ndaw yi nga xamante ne yaa ñoom a dikka du ma ne ndaw yi yëpp sax waaye dinaa ne comme si sa area foofu noonu ñu bari ràññee nañ la si Euh, comité waa ba benn Banjul euh, carnival bi waa benn Banjul South bi euh, ñu gis ne tamit sa comité yaa ngi yëngu di dimbale ndaw bi nga xamante ne mooy Paa Babou Cham nekk kan solo kansolo nga xam ne bokka nga si njiit yi nga xamante ne danga ko dee dooleel bokka nga si njiit yi nga xamante ne si ay kilifa maanaam su ñoo xam ne royukaay nga ci moom Euh, ba tey man su ma laa laaj ci kansulo yi euh, naka lañ mun a def ba jàppante mun na liggéey because ku nekk yaa ngi am sa woot ku nekk am nga li liggéey ku nekk am nga li liggéey ma bugg laa laaj tey yow soo bëggoon kansulo yi ñëpp ñu doon benn na ah, comme ñu mun a bokk ñu liggéey yow tey ban advice nga mun a jox kansulo yi. waaw mooy ñoom soo leen seetloo ñoom ku nekk dafa jógee ci parti boppam. Mm-hmm. dañ boos mu nekk indépendant. <coughs> okay you're the ok waaye yëfi parti moom comme ni ma ko waxee dañ ko tegee boor. Banjul su leen ñoree. ñoom ñoom ñett la ñu ñëw tuggee la. xool li ñu change attitude si. ñu mun a liggéey. waaw waaye su fekkee ne ñoom ñett la nga ngeen ootee meeting ñaar ñëw keneen ki ñëwut du musa dem. dis ñàkk a indiscipline mu fa. so waaye su fekkee ne ñoom ñett always ñu ngi déggoo di diisoo man su suñ ma bëggoon a dégg ñoom yeneen ñaari kansulo yi. ni ko dañoo ñëw daandu area Paa Babou seet lan la fa def jàngee ci moom. Paa Babou tam mu dem ci area Modou Ba. mu dem seet lan la fa def mu jàngee ci moom. boos de seen loolu ñoom ñett ñooñu suñ ko doon def. dinañ dinañ dinañ dinañ mën a nekk ci benn parensoor. waaw di gis ne dinañ seen wàll dina nekk benn. lu mooy wax. ak suma gis-gis ci li nga wax nii. waaw ok mu doon lu am solo te ñu gis ne yow tamit ah, nekk nga si goxi Pabaabu mu doon ndaw boo xam ne ah, xarañ na lool ci li moo liggéey mu doon koo xamante ne waa ko naw nañ ko torop si liggéeyam léegi yow tey suñ la waroon a wax nga wax si Pabaabu tey yow lan nga am pour wax ñi laa seetaan si yëfi Pabaabu. paa baabu moom suma xarit la suma goro la <clears throat> ñoo ko yar ña digal la li ëpp doole yëpp ko Spain America waaye bi ma njëkkee ñibbi moo njëkk a ñëw ci man ni ma nawetaan nañ bugg ci koñ bi ma foofu laa njëkk a xamee ne lii da la parce que daf daal isili ji tuggee daal ñu di meeting suma néeg ñuy dem di <clears throat> play quarter finals ñu cee nekk di daanu di jóg be yàlla def moom mu ñëw dugg ci yëfi kansulo bi keroog ba ma ko waxee laa xam ne suñ ko amee am nañ njiit dafa honest dafa am discipline dafa am yërmande moom ci boppam ci suñ woot projet biñ fa am suñ former councilor Njaga Jammeh ñu ngi koo ñaanal moo ko fa isi lim mu bëgg moo ko xamee na ko ko yàlla defal waaye bi Paa Babou jëlee over dafa change formation bi def lépp di si xaalis ni nga ko gis ni xaalis bi sax duy jaar ci loxo dafa am kuñ ko dénka mooy monitor mooy toppatoo xaalis bi te loolu dafa am solo parce que soo dafa mel ni ki rek ngay béy pompiteer te doo ko dundal doo ko jox ndox doo ko jox lim lim soxla waaye moom dafa ñëw mu def loolu si suñu wor beneen bi guddi dama doon doxantu li ko gis muy dugal ci koñ yi te dafa léegi sax di twelve one maa ngi doxantu gis ko mu ngi di ceeg lampa yi mu ceeñ lampa yu bari si suñ gox parce que ñun dañ daan teg suñ moto yi ñu koo daaji dañoo toog nga gis sàcckat bu dugal si kër gi waaye su la leer leeraay amee foog naa ne sooy def dara di nga ko xalaataat. bu yàggut nii bi ñu waxee lockdown bi dañ ne ju jumaa yi bu ci kenn julee ngir feebar bi man ma naan toog léegi-léegi sax temps bi raw ma ngir du ma xam waxtu julee mu dem ci imaam yi ñu am suñ gox waxtaan ak ñoom ne leen diggal kenn du mun a julee si jàkk waaye de leen dee nooda Maodo bi léegi su ma fekkee ci bunti kër gi rek xam naa ne time bi jot na fu ma mun di fekk xam naa ne time bi jot na nga ñëwati ci wàllum si nit ñi tuggee ñu ngi am si groupe chat waaye di nga gis ne place am bitikam guddi fa la ñëpp day ñëw doole bi fa la ñoo nekk tuggee mm-hmm. woon bi mu nekk foo gis am na vuu amun problème har ma yala ken so le men ken se din ko ba fega mun ge dambia nga dem fega ko ci chabbi down ken street din ko fega fo mo mo bay ci tam so lolu dafa important ci kan solo am njit moy ya ngi interagal nit ñi su boba di nga mëna xam problème nit ñi lolu tax ku ku wala jog ci nguur gi central government o ci benen area so bëgge def dara dama ci kansuloog Pa babu cha parce que mom xamna li dox xam parce que daf dee dugga di génn wa so amé njiit na du dugga ci di génn nak xamul li xew xam koku jaru sa nga salen ko benen bi ci walum safara ñu ne ñooy tok rek tan bi tak kenn du xam safara fu mu su ma ko rek na faya service man aw ma nu ma faya service dëgg la waroon naa koo am understand li waaye su ma xel néew ko waaye moom mi nga xam ne kël la la am na nomba bi nawek am na man mii am naa nomba nawek waaye moom tam am na nomba nawek daaneel nañ suñ pool ma gis si saa si gars yi nawet gi ñëw soo dangaa ne kañ jox ko xaalis mu liggéey fu mu nii man ku ma bugg a wax central government au maire bi dama naan ne joxal Paba bu xaalis mu liggéey suñu area waaw jox ko xaalis mu liggéey parce que li ma la mentionné lii amul dara loo ci mun a wax ne bàyyi na ko am discipline la waaw soo loolu rek laa ci mun a wax li ci des rek mooy di ko ñaanal rek gudd fan a wér di ko ñaanal yàlla musal ko si cat ak seytaane yàlla jubale ko mayor bi moo liggéeyal ak suñu central government ak ñi nekk ci goxam bu yàggul nii toog nga yaramam neewut man xam naa ci dara parce que dama ñëw di ko laajte ñu ne ma dem na lopitaan bi mu ñëwee three days génn ma ne ko da nga soona dara jotul la da nga soona rek loolu la parce que duy toog waaw duy toog waaw dëgg na yàlla duy toog soo na ko gars yi dooleel daal loolu laa loolu laa bëgg a appel ci ku ko bëgg a jàppale daal mm-hmm. waaw because dëgg la ba ma ñibbisee ba léegi gis naa fi kansulo si gis naa fi lu ne waaye man su ma dëgg wax te yàlla tax su ma woot man li ma fa gis moom am impress waaw waaw lii la rek waaw ah, mu doon lu am solo ma bàyyi suma oncle bi tamit mu sànni si tuuti parce moom tamit gis naa ne hmm. area boobu noonu la jógee ñu bàyyi la yow it nga sànni tuuti si loo ñu mën a wax si paabaa bu Cham Paa Babou kay ñu ko koo ñaanal rek hmm. waaw ñu ngi ñaanal rek tamit du saay wax lu ma bugg a wax yépp saa yi wax na ko <laughs> xam nga definitely papa boobu moom xale bu am jom la waaw war nañ koo jàppale si benn side boobu noonu waaw mu ngi jóg di dimbale waa gox bi tamit boor boobu noonu waaw du fa mug di tamit moom mooy jóg di toppatoo ay noonu definitely waaw war nañ koo jàppale ñu ko ñaanal tamit you yàlla yàggal taxawaayam suñ kanam mu doon lu am solo kon balaa ñoo dem rek ah, Mr Kuka ma bàyyi la ah, nga tàggatoog ah, mbokk yi la seetaan na du ñàkk nga am kàddu bu ndaw li nga xam ne di nga ko joxe as a message si ndaw bi si nguur bi nga tàggatoo gaa yi. waaw li wax jërë ngeen jëf li ngeen ma invite fii um, di nuyu suma brother boobu ba ci li ak soxnaam. Mm-hmm. ak yéen staff bi <coughs> te di gërëm Paa Babou Thiam mi nga xam ne. ak boo waral lii yëpp. bi ma mën a ñëw fii ñëw fekk si leen fii. di la gërëm yow tam Ada. suñ jarbaat nga suñ doom nga soo jublaa ñaanal. yàlla barkeel ci li nga nekk. te yóbbu lii ba mu àddina si yëpp di dégg place bi. waaw li ma am ful lifin rek dama dellu tuuti rek suñ eldasi. mu suñ kilifa yi. doore ko ci imam Lamine Ba. ñoom alaaji Babou Samba ñoom Tafsir Diagne ak ñoom Badaaw da Koor ak suñ kilifa yi yëpp woon kilifa Banjul Demba ñoom ñoo suma papa la woon alaaji Abdou Koka di doon dem ba gars try nañ ba isi Muslim High School moo moo am solo ci ñun parce que ñi jaar foofu yëpp muy président Adama Barrow sax jaar na Muslim High School man mi jaar naa fa Mohamed Dia jaar na fa Idi Idi Maas Diop jaar na fa Essa Fall Tiara si jaar na fa waaw. ak man mi jaar na fa. waaw loolu yëpp soo gisee may dellu foofu noonu li gërëm suñ kilifa yooyu démba mooy ne liñ def rafet na ba muslima ngi nii tey ñun mi dañu am group bu ñoo GMHS 77 dañ dee dooleel school bi di ko jàppale. Wow, so di nuyu suma chairman Majula Kora di nuyu Pa Ousmane nga Sal Korea mhm. you know ak suma ñi ma bokkal groupe bi yëpp ñoom Anna Menga mhm. ak ñoom Day Diallo soo gisee maay wax ci school affaire school bi school bi docteurs mhm. yu bari am nañ ko am nañ fa lawyers am nañ fa engineers am nañ lu nekk ci school boobu noonu waaw président muy suñu Adama Barrow So ñu ngi ñaanal kilifa yooyu noonu kilifa démba yooyu noonu laa bëgg ñun ñu roy ñun ñëpp suñ jarbaatee suñ doom yi suñu wéy si kilifa démb yooyu noonu rek dëkk bi dina dem ni mu war a demee parce que yërmande amoon na waaw kilifa yooyu noonu dañ amoon diini dañ amoon yërmande dañ amoon sutura waaw ñoom it neen dañoo dugalante di defalante di jëflante waaw looloo tax nag ma ekkati topic boobu noonu di ko dooree nag ci président school bi woon muy docteur Samba man su ma ba mooy woon vice président bi muy Alaaji Abdou Koga amoon nga fa ñoom leet Oyesi Ndiaye ñoom daa fay amoon nga fa ñoom um, kii eh, MAR eh, e amoon nga fa ñoom EE e ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Ablaye Bacary ñii yëpp amoon nga leen fa waaw di waxale yi tey rek ci affaire yu virus bi nañu respect waaw nañ respect docteur Seli ni leen wax ak nañ respect li leen seen kilifa yi di digtal mooy di raxasu di di di di jël précaution si parce que comme ni ko honorable Papa bu waxee prevention is better than cure waaw di leen won tam ne leen ju jàkka yi jumaa yi do doxul ñu ngi ko tëj waaye terewul nit ki mun ngaa toog sa kër nga julli jaamu yàlla yàlla moom fu nekk nga ko mun a jaamoo dégg naa sa sa kaw lal mun nga ko faa jaamoo waaw di wax ne du benn excuse na nit ñu understand rek ne prévention moom moo tax waaw lolou rek mom moo tax et par di ñaanal ñi jël seen alal yépp ñi nekk abroad ak ñi nekk fii ñu ngi jënd maalo yeeg diwlin yi ak li ñoo ngi yépp di ko dugal ci kër yi ñu ngi leen di ñaanal lañ bëgg ñu ko xam yenn si yàlla def barke yàlla defal leen jàmm salaam waaw di ñaanal nag suñ brother esa Fall TRRC ne ci lim nekk di yëngu na nit ñi understand ne moom li moo def nii moom moo ay nit ko hanya so sa kamera bi di ko full evidence rek Pas parce que jadi gini alam génnee alalam jox la ko war ngaa mun a xam fan la dugal sa alal waaw suñ honorable tam foofu laay tëjee moom génnee na yu bari di ko def ci gox gi waaw ñu ngi ko ñaanal yàlla rafetal te defal ko jam ko fan bu bu yaram ngeen jërëjëf Mr Kouka ba tey honorable Pa Babou Cham ma bàyyi la yow it nga du am du ñàkk am na loo xam ne bugg nga ko jox waa réew mi wala nga tënk comme si gàttal rek nga joxe yow tamit duna duñ ne sa mujjanteeli kàddu parce kër bi sa kër la du ñàkk a di fi si waat ba tey ñu bàyyi la yow nga am looy jox waa ñu laa seetaan. waaw foofu waaye balaa maa tàggoo pour ma leeral leeral ndaw si nit ñi dañ ko dee faral di bëgg a wax. comme gars yi dañuy consulé si dañu war a déggoo ñu liggéey mm-hmm. si man suma gis-gis mm-hmm. ñu ne leen amul benn problème mm-hmm. man amul always plateforme war taxaw ñu amul problème bi soo bàyyee ñun five consulés foofu ñoo fa jógee UDP euh, benn PDOIS PPP euh, euh, benn ak ñaari unit benn te ñu ne leen xamante balaa ay yëpp problème na ko fa soo pour wan nit ñi da ngay ne problème doxul suñu diggante ñun ñu neen consul foofu xanaa kenn dafa des kay yow nga gis nit def dara rek mu yow nga seet ne fii loolu laay kii lu mu def moom rek loolu la waaye problème suñu ne si liggéey bi problème moom fa moom boobu moom bu ma leen ko wax nga xam ne problème nekku fa problème tam nekku suñu diggante la ak maire bi tamit soo na nit ñi xam loolu rek waaw peut-être di rafetul comme lu tey ko doon wax Hafiz moom suñ suma goro la suma comme ni ma ko waxoon rek suma bentoo la suma yëpp so comme moo tax ñu suñu ko ñu taekwondo bi ma la waxee mais mooy suñu taekwondo bi wala ñu koy waxee taekwondo bi wala boobu sama ko yow yaay borom xale bi man maay borom nit ñi. di wan nit ñi ne képp koo xam ne pour dis pandémie bi di ko waxaale nit ñi di ko déggal ngir yàlla suñ ko def ngeen seet ñu koy yelloo plus nañ ko def te yàlla tax. bu ko nit ñi def di ngir ñu ngistal. et eh, ngistal baawut. Euh, te comme diine may na la comme dafa ne sooy defal. dara su ko saa ndey ko di jooy sa caawa si mu ngi ko yëg. waaye am na feneen fu mu dem ba may la tamit booy am na yenn soo ko may tam mayal ñëpp la tamit. waaw su gisee mu tax jox la ko pour ñu dul joxe. gars mun a xam ne kii mu ngi joxe. waaw waaye nekk da nga koo def pour ñu da nga koo def ne maa ngi def li déedéet. loolu soo ko defee da nga koo def pour ñi am. bañ a joxe. pour gars yi si loolu royee si. waaye loolu. fay dee ko def fay percent waaye nekk fay percent bi yëpp te koo def te bu ko sa càmmoñ sa di yëg di wan nit ñi ne ting sama a plus tis feebar bi comme lu ma bu nit ñi di wax yëpp bu di wan government tamit bu bu leen ku la ku nga xam ne na mu fekk la ñu bëri ñu dañ ko protéger dañ ko protéger pour ñu bàyyi suñu xel bu baax kenn du gànnaar lu bon lu bon kenn du ko gànnaar su su dee politique dafa bëgg a dem bu boo faa nekk sax bul gars yi def loolu ko rekut képp koo xam ne danga ne bu boo koo politiquee ma waxat ko fii wat li nga bugga ena bu la suñu borom may kuy def defal te yalla tax yalla ko bugga kuy def lu baax soo defé lu baax mu fere lu baax soo defé lu bon mu fere lu bon ku def ni ngistal ngistal rek ngay am sa aduna da ngaa saxaar rek total ko so di won nit ñi ne na gaa yi sen seen xel bu baax things metti ku fogné so soo ba jox so demee jox ma sa ko mala dama nopi ya ngi na sa bop fu nekk nit ñi jaamu yalla ba dee mo leen dinal dañoo leen dara pour ñuy yaakaar. pour pour mu dimbale la de déedéet ñu ko motal loolu de. dafa leen te yàlla tax. yàlla fay laa sa xol. li ma wax nii képp koo xam ne politicien nga nekk si fil bi comme man ni ma nekk si fil bi yéen moom wax nii daf leen te yàlla tax te am yàlla. moo gën a important am yàlla moo gën lu nekk. yàlla ngeen man yàlla moo gën ngeen man doomu aadama di la gërëm. te man loolu sama ko dafa gars yi bëgguma kenn ku ma lay gërëm parce que su ma nekkee di gisuma suma xel si yàggee ma beew foog ne man la fekkee teewul man man du ma dara bala nga xam ne bu ma dara bés bu ma dee bi ma soo soo ñuy xool ma di nga xam ne ban paaw sama du ma dara ñun duñ dara ay doomi adama dañu ko jaam yàlla rek ku nekk sooy def defal te yàlla tax sooy defal nit comme dama ne déglu ku mel ni mufti mu ne bu gis ne nit ki defal lu baax da nga koo defal lu baax ñu gis ne kii dafa defal lu baax exemple defal ko lu baax mm. déedéet bés bu ñu defee lu bon est-ce que ñu defal lu baax. doo ko defal lu baax. soo defal lu baax yàlla moo bëgg lu baax. soo defal nit lu baax. te yàlla am def condamné na rek soo defee lu baax lu baax. dëgg la dëgg lu baax nga baax carrément soo defee lu bon lu bon nga baax fekkal. dëgg la dëgg la plus comme lu tey ko doo yare ni léegi dëgg la de. plus mm. di wàllee rek loolu sama ko deewal Banjul. dëkk bu neexal am ñaan Banjul laa wax dafa neex am ñaan. Mm-hmm. kër boo duggoon bugg a lekk rek koo lekk am na yenn kër cosaan ba tey moom fi waaye am na yeneen kër ba léegi jaay nañ ko waa Banjul sax boobu ñu ko jaay dem ko moo tax ñu am yeneen problème yu bëri léegi am na leen wax ne suñu feebar dinaa ko waxaat fii neen tere ñu raxas xol ñun suñu feebar fii mooy añaan neen bàyyi suñu xel bu baax añaan feebar bu bon boo xam ne la góom la si nit dangaa dundaa mu ba dee te booy dee dee bu ñaaw ngay dee soo neen bàyyi añaanante bi ñu puusante dimbalewante su ma la gisee ne aada yaa ngi dem ci yoon bi nga dem koregut dama laa oo ma adverse diine moo bëgg a dugg diine a soo soo gisee ni ki muy dem adverse su dee aada mu ko gisee koregut mu gis ne yow da nga ko da nga ko bëgg a añaare waaye sa xol xam nga ne jàmm nga indi aada yow yàlla dina la fay sa xol moo tax man always dama lay adverse bu bëri sax daal ñeneen ñi ne ma ay baal ñu ne ma bëri ne fine bu ma si dem nag nit diine moo bëgg a loolu. dëgg nga leen di wax comme tey ak abis boobu ma toog àdduna ne kaay julli ngeen ma waaye dama ko julli waaye ana ma yow yu ma ko wax. jaamu nga leen bugal. diine moo nit ñi fàtte wante. fàtte wante daal waaye su ma la koy waxee def coow man damaa noonu ma xam ne est ce que xam damaa xam ne comme nekkoon di ko pratique moo tax. ngay wax lu mel noonu. waaye bés dina ñëw di nga xam ne kii dina wax dëgg la. nen di wax dëgg ba dee man soobee yàlla dama ko wax bés bu ma sànni suuf si digga rek laa ñaan yàlla yàlla dama si sàmm rek ma see dox ba bés bu ma sànni suuf alors dina rafet dina war a jërë ngeen jëf Sahel fii comme ni nga ko waxee suma kër la fii moom su bi lu nekk suma suma laas wax dinaa fi gën a ñëw di ñëw di ñëw di ñëw man maa yem ba faw te kontaan tamit lii lu nekk Banjul fii di kontaan si loolu trop di ko waa sa wax ngeen si kontaan nañ si trop ñu si yëg seen bopp bu baax a baax di leen si gis seen bopp bu baax a baax di sant yàlla bu ñëwee ba tey fekk suma papa mu nekk fi tey oncle Bachir tey mu nekk fi tey mi mm-hmm. nga xam ne mosuñu ko si koñ bi la ngay déggoon ak yow mi nga xam ne suma rakk nga nekk fi di si kontaan di ko rafetlu bu baax a baax mm-hmm. di leen ne jërë ngeen jëf mm-hmm. jërë ngeen jëf di wax gawa Gambia ak waa Banjul ñu ne waa Banjul bëgg rek ne xam dundalu nee rek engalu nee rek xappi rek simaay rek ak nga ne ma yow ngeen nekk di ree comme <laughs> tool ñi ni moo bëgg a ree sax sax bu rëy laa gis always day ree te li nga ree mixeur mu nekk sa xol bi nga niin ko bul nekk ak plastique si ma la baaxul léegi li ngaa ree niin ko mm-hmm. ma yow di ree dara dama kontaan moo tax may ree bul dara mm-hmm. mm-hmm. rek a rek kontaan day kontaan sooy dee sooy dee sa rek nga si ah, dafa correct trop lay def rek rafetal comme li nga wax ne mi ngi seen njaboot comme ñi wane comme tey xale yi njariñ bi waajur yi ku kontaanoo sa doom tey ëllëg sa doom dina la jooy ku jooyloo sa doom tey ëllëg sa doom sa doom dina la kontaan la wax la nag soo gisee mu wax wax boobu sa doom yar ko tey dóor ko tey muy jooy ba mu xam pour ëllëg mu njëriñ la nga kontaan de waaye soo seetee si lu ko mu muy dox jamono bi mu jamono doxee te koregut comme ni nga ko waxee rek ñun ñu war a nekk waajur tey doom yi nekkal waajur tey loolu musiba la si doom. musiba la de doom bu jooyloo sa papa jooyloo sa yaay sa àdduna dafa métti di won suma morom yi ñëpp képp koo xam ne njaboot nga tey sa waajur kontaan na ko muy sa paasa yaay ak kii moromoo sa waajur ñun ñu jox leen cër ak kontaan na sa mag jox ko cër dafa important nit di joxante cër joxante respect dafa over important li ma waajal nag am na bu baax ba baax ku nangu tey sa doom tey nii kontaan ngay kontaan moom di dem ëllëg dina la jooylal te bu la laa dina mii tey trop te di nga toog ëllëg ni dina ne ya ko yare woon noonu démb la so ni wala ba bàyyi suñu ba bu baax hmm. dina nga doon ni doomam sax moom akasi la akasi la dama suma doom te ñu booba jamono dofloo sax suñu la dërëm nga def si kër so waxee sa papa daal di ka tegal ñu mbéjoo kal si yaa ngi la waxati soo ne bàyyi si waajur bu baax ba di leen jaajëfal di kontaan si programme bi trop Ada. jërëjëf. <laughs> waaw jërëjëf waay. jërëjëf Mr Thiam ñëpp a ko déggandoor yow muy seetaan man muy seetaan Cité Affaires lañ wax nañ gën a seet nu ñoo dolalee réew mi surtout Banjul Banjul soxla na ndimbal boo xamante ne foo ko nata rek weesu na ko ba tey man leen di di leen jaajëfal yéen muy seetaan di leen wax ne Sahel Network TV la fii la lépp di xewee jërë ngeen jëf.